génn ci it alwasaayilu laa kaamal maqaasid tey mu ngi jàngale ak tere su ma topp mu wax almuallifu taarifkat bi ray moo yàlla yërëm ko laa yàlla ne taarifoo xam le tere istidaaw tarkin mooy sàkku bàyyi goo xam ne xad waje ba war na bi xawli ci wax bil xawli ci wax mi man ci nga xam ne kaana nekk na duuna mën a yës xam ne tarab sàkku <laughs> boo sàkkoo ci ki la suuf mu bàyyi dara loolu moo di tere mhm. nee na nag foo mu nekk wax mhm. dégg nga mhm. xawloo waxam man kaana ci nga xam nekk na duna man tara boo risku sàkku mooy ka ngay tere na la faree suuf xaraja génn na bii ci moom maa ngi daa kaana bu nekkee anaa tere gi mi man ci nga xam ne moo gën a néew moo gën a suufee mu ne mu wajja ilay yi ca ka ñuy la wax ji ci moom booy teree koo xam ni yaa ko gën a suufe loolu du tere de fay noonu nag mooy sama lañ ko tuddee du am ñaan ku la faree kaw daal boo ko teree kooku ñaan la ku la faree suuf nag boo ko teree kooku tere la ka xaw li ni ki wax yàlla taala kawe la ñun ñu ngi ñaan yàlla na rabb naa eeyu suñu borom wax yàlla la waaye suñu wax la ko am xol wax yàlla la mm-hmm. waaye ban la mm-hmm. wala alquran alquran ñu ne mooy lan wax yàlla ñu ne mooy lan mala yàlla ñu ne alquran ji dafay tekki dafay junj melawu dëgg-dëgg dafay junj wax ci dëgg-dëgg waaye wax ci dëgg-dëgg waaye lam làmboo loolu ay melu yàlla ji rek amul xaraf amul kaddu mela la wu sax ca moom du soppeeku du changé du tourne léegi nag xoolal li alxuraan làmboo tudd na la asamaan tudd na la suuf doon na la ndox doon na la ngelaw almaaw ci alxuraan jiñ bind mën nga cee naan waaye maaw ji mu wax moom boo demee gis ko moom dañ ko naan waaw boobu amul xaraf amul dara loolu nag faraa ci yëpp mm-hmm. nit ñëw sori mbiri rek waaye it waxe yàlla lañ wax de waaye bii ci lisaanu ci man martaba ci martaba jàpp yàlla waxee ne rabbana yow suñu borom xam nga li yéet nit hmm. yaakaar nañ ne buñ ne yàlla rek lépp toll waaye yàlla ay melam toll wuñ de te mel bu nekk dafa am lu waaye jëmm ji moom jagoowul lenn wala si leneen xam nga ne rahman kooku duñ ci mbugale waaye mun taqim hmm. duñ ci yërëmee xam ne allahu lam lëmb ëmb hmm. kooku arrangé su ëmb ko عزيزهم نكمل الله الله الله عزيزهم allah moom nekk mel aziz waaye aziz mën naa nekk mel allah tur yàlla yi garaat yi bokkuñ moo tax yàlla kenn la waaye du lenn melo yi du lenn de te melo wu nekk dafa am lu mu jegoo ak lu mu jegoo alquran melo yàlla la xaatir gu réeg bi rabbana yow suñu borom laa taaxirnaa bu ñu jàppee inna si naa bu ñu fàttee waxtaanaa a ñu juum xam nga fii da ngaa tere da tere yàlla waaye ñaan lañ koy jàppee na yàlla la gën a fare kaw xanaa naqul lu ñu wax noonu ñun neen xaa dañuy tere àlla yàlla bali fi nekk na doomu dañ koy ñaan waxara li gën ne bii ci ma ay dem ba tey may daa kaana bu nekkee annax yu tere gi min mu maasin caaji xemoo aw mu saawin wala aji tolloo soo teree koo xam ne nii moom yéen a fay noo nekk moom yusammaa ni ko té iltimaasan ak sàkku sa morom nga tere ko dara xam nga loolu du tere waaye sàkku la rek waaye bàyyi li nga def waaye moom noonu sax nga koy waxee waaye doo ko jàngal xeloo da ngay neexal rek yaa ngi ma sam altamisu maa ngi sàkku min ko ci yow waaw taxarraa maa ngi jublu àlla tafalu bul def li moom laa bëgg wax fisa xulta boo waxee ala sabili misaali ci yoon exemple li sami li zamili ko ñeel sa morom laatu zaaxim ni bul buuxanteeg man jazaaka yàlla na la fay àlla àla فهذا التماس ساكولا واري قلت لي ترى كون تركين كو رمو يتنا فريسوف نعم. وقوله وخم طلب ساكولا يعني المسلم استدعاء ساكولا دين استدعاء اكثر بين لك وتعريف النهي قمل ترى كما يظهر كم نمي من البيت شبيت بي ضد تعريف الواجب ميسفان قمل لور dégg waajib mooy nga sàkku dara ci koo xam ne ni yaa moo la fare suuf ci moom loolu day mujj war ci moom tere nag mooy nga sàkku bàyyi ci koo xam ne moo la fare suuf faqad jaala def na almuallifu taalifkat bi badaru istidaai fiali remplace sàkku jëf istidaaw tarki sàkku bàyyi loolu la boo sàkkoo jëf muy digle mhm. nga sàkku bàyyi muy tere ci ku dafa rek nag fa mu mujj am naa ñu tere mhm. istidaaw tarki sàkku bàyyi al waajibu tarki lu ñu war a bax moom mhm. mooy tere mu man ci nga xam ne ni foofu moom duuna man talab suufi nag ka ñuy kay sàkku maanaam ka defaree suuf fal maanaa maanaa ba am na naxee na tere talabul kaf mooy sàkku bàyyi ani feel ci jëf ji mi man ci nga xam moom doonoo moo ko faree suuf mhm. tere mooy lan mooy ki faree suuf nga nekk mu baax mhm. ay lu maslamu duuna taalibi moo xees aji sàkku jëf mhm. alaa waji istinlaay ci anam ak kawe kawe bu ñëwoon tere la dara fekk mu ngi la noté lañ koy tuddee parce que jamono boobu jàpp na rek moo la sut fi mu hmm? ana taaliba naa aji sàkku jëf dégg nga يفرد دنف دغل نفسه بهم وكانوا نف منهم على موغنا من المطلوب تشك ميساك بو جابل يا غنا كاي واجي لا تركو دار رك تنكو جاب تر آه. وعلى هذا التعريف في قبل لي فينونكم لا يسمى دولام بو المكرو لنسب كون تر لنسب بوكو فالمكرو لنسب ليس نكون من يندر تران زو لانه نحن لا يتوب ساكون تركو بايكو على سبيل الوجود على سبيل الوجود شيون ام bi xilaaf il muharram wuteeg lu xaraam lu xaraam dañ ne la bàyyi ko ci yoonu war lay bëgg wax laa sabil wujub ci yoonu war waaye borom yax bi waxul la fa war demul dafa ne nga sàkku ci ki la faree suuf mu bàyyi loolu mooy tere kon kay luñ si dugg na ci waaw waaw xar wajaba waaw xar wajaba gi moo ko yàq waaw istidaamu tarkin xar wajaba moom def ne Mm-hmm. nga sàkk ci moom mu bàyyi loo xam ne daf ko war a bàyyi parce que boobaa luñ si day génn waaw dafa waroon a istidaaw tarkil rek sàkku mu bàyyi rek mm-hmm. boo sàkkoo ci waa mu bàyyi loolu mooy tere su boobaa luñ sib daf dugg na luñ sib moom luñ tere la ah. waaye booy nag boo sàkkoo ci waa mu bàyyi lu war nag mm-hmm. ah su boobaa lu xaraam rek mooy luñ tere waaye luñ sib nekkul luñ tere fa tabayna mu leer alaan léegi am na rayul mu allifi naka xalaatu taalifkat Ibrahima wala muy anal mustaxba naka luñ sopp lay si nekkul moom woon di luñ digle bii ci moom mhm. wala nal makru naka luñ sib lay si nekkul man xeen di luñ teraanu ci moom mhm. su fekkee da ngaa jàpp ne digle mhm. mooy sàkku nit ki def lu war kon luñ sopp génn na ci boo jàppee ne nit ki bàyyi lu war luñ sib génn na ci waa daal di xilaafu sawaab bi wuute naa luñ jub digle daal mooy nga sàkku nit ki def moo xam lu waram lu warul la tere mooy nga sàkk mu bàyyi moo xam bàyyi gi dafa war wala bàyyi gi warul wa sawaabu lay njub anal makruha naka luñ sib man hiinu anhu luñ tere la wa anal mustahaba naka luñ sopp maamurun bihi luñ digee la fa xala hada ci lii fa nusqut danañ rosal fi taarifu ci xam léegi xawlu waxam qad wajaba war na dindi ko boo ko dindee ci lay gën a baax qaala wax na almuallifu taalif kat bi raximoo yàlla yërëm ko allah taala kaw na ne amruna suñ digle bi sey ci mbir nax yun tere la maane on ji aji dog mbir mi maane on bi aji tere min dindi safaana mhm. wala ak su safaan bi ay leen ba tey waaye kon aji tàbb la li mu bëgg wax mooy buñ diglee dara rek mhm. tere nañ safaan ba mhm. dégg nga buñ la lii tere nañ la safaan la teree dara it safaan bo bu ko def dégg hm? nga dégg nga waaye dina ko dina ko gën a dégg si waat yaa ngi lu ma namm bisaar bi si al mu alif taalifkat bi lam namm kon bisaar bi si al mu alif taalifkat rahimahullah am na amar na digle bi si dara ndax yu terlaan di di safaan buñ la diglee dara tere lañ la safaan mm-hmm. bi boo nax yu tere ani si mbir am lu mu digle la bi di di safaan buñ la teree dara digal nañu sonn loolu dafa laaj teqal dégg xàgg saa nag nii xaal la waxal muallif taali ko rahimahullah yàlla ko yërëm taala kaw na waxaal yi lii nag masalatu masala la boo xam ne fiyaa nekk na si nisaawoon xëccu benn ulama yi si diggante borom xam-xam yi rahimahullah yàlla yërëm yàlla yàlla taala kaw na so nga xam ne buñ teree gerte nga xam dañ ko tere tere guñ sib kon ñàkk gerte dañ ko digle sopp ko su boobaa luñ sib rek luñ la wax dañ ko sib safaan ba dal di sopp li ñu waxoon dafa xarab safaan ba dafay war njaalu dafa xarab ñàkk njaalu dafa war waaye masala moo xam dafa dafa laaj caqale raxi moom yàlla yaram leen ñoom borom xam allah wa taala kaw na xëccoo nañ ci waaye moom xis maa ñaari xaaj ala wala wax ji jëkk ji mooy al amru digle bi sëy ci dara xal woo ndax moom nax yum tere laan diddee safaan bi digal nañ la julli mooy tere nañ la ñàkk julli aljawaab tontu bi mooy laa déedéet lay si nekkul amul digal bi seen si dara ndax yéen di teraan di nekkul buñ la digalee dara rek ter nañ la safan bi déedéet demee noonu mur la xan moom demee noonu waaye nag illaa nekkul mu nekk tuddoo safan mën di déggee mi nga am la si digle bi hmm. te buñ la waxee julli tisbaar dafa war ci yow loolu moom déggee nga si ne ñàkk julli tisbaar dafa xaram so hmm. kon foofu moom bañ la digalee tisbaar rek la lay tere safan hmm. amaana taal kër loolu la si nam mooy buñ déggee si digle bi tere safal do hmm na jàpp waaye yeneen bi ne la naafilaal ñetti rakk di ko naafilaal fukki rak ak ñett ci wër ko bi tekkul ni ñàkk naa maanaam dañ laa xaayal ñàkk naafila wala naafila lu gëna a néew loolu wala naafila lu xam nga teel naa pour ñu dama laa digal yéen ko defal mbir mi ni wala mu leen fété leen euh asura ci wor tekkul ne dañoo tere nga feete ko saraxe wala joxe naa wala joxe naa yooyu waxu si dara day ah. koo digle rek hmm. tekkul tamit ne bu ko ñàkk feete ah. kon digle dara tekkul ne dañuy aaya safaan ka hmm. masala mi ñu ba dañ si jum de ah. pour yonent lii lañ santaane woon ci bis bi kon safaan ka dafa xaram déedéet moom loolu waaw comprendre masala waaye liñ bëgg wax mooy buñ la digalee dara nga déggee ci digle ga ne safaan nga tere nañ ko rek tere nañ ko ni ki ñu ne la julli takkusaan waral ko mooy ne ñàkk julli takkusaan dafa xaraam fen xila bu isaa xila bu ñu waxee ifaal defal kaza comme nii ifaal defal kaza comme nii faalu wa ndax moom nahyun tere la an tarki ci bàyyi ko ala kalaami mu alif ci waxu taalif kër bi yàq sëy dafay waral an yakuna mu nekk nahyun li tere an tarki ci bàyyi ko bu ñu ne defal lii rek boo ko bàyyee def nga luñ si dee lu war la boo ko bàyyee def nga lu xaram ah. moom loolu mooy xaay wala sa kasaa rek mbir mi demewul noonu fo masalan ci misaal law anna rajulan bu doon ak góor taraka bàyyi na siwaaku soog ci ànd salaat si waxtu julli xal naqul na dañ wax inoon ak moom waqan tàbbi na fi makkuroon si luñ sib parce que dañoo santaane julli boo julli nga socc hmm. ndax boo ko bàyyee dañ koy sib الجواب تنسب الى عدل نقول ما ترك بال مستحب للشوب اي بال شوب تيكو ديف لي ولكن واي أيوة ولم يقع تابو في مكروه في سمنا اي أيوة وين باي سوتي يو سنتان سوتي غير فلا يلزم دوار من ترك المامور تي بال ديغلي الوقون تاب في دي دي سفانت لو ني ديغي تي رول فمن ترك كو باي سنه سنه لا نقول دوني وان انه نكون فاعل دفنا مكروه في سمنا ندي نعم. ديف كو رك فا يوكو تيابو waaye bàyyi ko nag taxul ñu sib tey par exemple euh, kii fàtte naa ko de bi santaane na ko ko bàyyi da def lu ñu sib kon digle dara tekkiwul ne safaan dafa dañ ko aaye lu moo ñu déggee ko si nag waaye am na yoo xam moom bu buñ la ko diglee rek ايغام سفين ولا فكر ينكو هاي تي وور وير كور بل كو سنتي ام لا نياكو هور دنج كو سيب مثال اخر بنين مثال لو خيل بني وخان ارفع يكد يديك سلخو هنا تكبر ارام تكا برحم الله وين ركوع اك جيم ركوع وين رفع بني يكد كو جيم شي ركوع وين الخيام اك جيم تاخو مي تاسو اول سي تاي بو جيك بي نينت بربي لي بروم خوم يكد سلخو بني كبر الله ak bu ñu rukkoo dañuy yëkkati seen loxo bu ñuy kàmbaar bu ñu yëkkati ko ci rukkoo dañuy yëkkati seen loxo bu ñuy kàmbaar bu ñu euh, amee ñaar ak taay ba pare bu ñuy jug dañuy yëkkati seen loxo yu dul yooyu da ngay kàmbaar waaye doo yëkkati sa loxo ñeenti barab yi ngay yëkkati sa loxo borom muqaddima nag moom def ne kàmbaar xam naa bi rek boo koy def si nga yëkkati sa loxo lu dul loolu doo yëkkati kooku wute la waaye yii moom ay xadis ron na ci faal idaalam arfa ndax bu ma yëkkatiwul akkoon damay nekk waa al muallif taarif kabira day gis ànd ak rek yow waaye xam nga itam bisa fi la santee dara mm-hmm. bu dee lii dafa sopp dañ ko sopp boo ko bàyyee def nga luy sib mm-hmm. bu dee dafa war boo ko bàyyee def nga lu xaram moom noonu la ko jàppee mu jeex moom. waaw daal si nekkul ba sa yoon du weer ba li fi nekk yu xaal dañuy wax laamuru digle bi si ci dara yaa ni lu mën yaa ni lu mën a mu alxasu ñaax ala fi'li ci ko imma benn wujuban muy lu war. loolu mooy benn al istihbaabul muy luñ sopp buñ la digalee dara benn muy lu war wala luñ sopp ba misaalul waajib bi misaalul lu war amru nabi digle yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi rukkoo ci rukkoo fa bi nax yum terelaan mooy bul sujjóot xam nga ñaari ñoo bokkul sax maanaam bu ñuy wax sax amru bi seen nax yu naan an diddihi loolu mm-hmm. ñaar yu safaanoo la pas ah. ñaar yu safaanoo lii waa bi ñoom nii lañu def maanaam buñ la waxee rukkoo mooy tere nañ la bañ a rukkoo loolu moom dëgg la mm-hmm. waaye su jël lu si yoonam moom mm-hmm. <laughs> su jël rukkoo la bokk ah. julli ni ak saraxel sarax ak julli yëpp bokkuñ kon bu ñuy wax masala mi ci usul ñaari yu bokk lañuy wax waaye ñaar yu bokkul moom du du misaal hmm? kon bu ñu la leen rukkoo dëgg la ñàkk rukkoo moom xaraamal nañ ko waaye bu ci dugal si jur si jur yoon nekkul si aljawaab mooy laa di wala daal lii moo tax naqul ñoo addidu safaan ba idaa kaana bu nekk foofu moom aynu nax yi mooy jëmmi tere ba faalaa li saxi woon du la bu dee liñ la lañ la lañ waral ci yow lépp luñ waral ci yow safaan ba mooy jëmmam mm-hmm. mooy mooy mooy mooy safaanam mm-hmm. moom moom dafay xaraam mm-hmm. waral nañ ci woor ñàkk woor dafay xaraam waaye waxuñ la ñàkk ji léegi ñàkk naa nga parce que loolu jotewul dara woor waala li si woon lu wér a naqul ñu laamru digle bi rukoo ci xam ne waqaa fii tuum ndax yu tere bu ñu diglee nga rukoo mooy tar nañ la nga bàyyi rukkoo kon duñ la digalee lu war rek tar nañ la safaan ba safaan ba jëmmi lu war loolu loolu moom dëgg la foofu moom xaari dëgg la luñ sopp nag buñ la ko digalee ah boo takkee boo kalaama ulama gis ñu benn mbir ñu lim ñu ci biir nga gis ci yoo xam ne bokk na ci ñu ci biir te bokk suñu soppi nga déggee ci ñoom ci déggewuñ ci ne luñ sopp rek mm-hmm. contraire dégg hmm. waaye nag ndur na réer hmm. naa waaye mooy jëmmi loolu rek lañ bëgg wax hmm. pas ñaari wutee comme rukon sujjóot loolu ñoo wutee jullil ñeenti rakka tekkul ne bul julli lu ëpp ñeenti rakka tekkul ne bul saraxa tekkul pour nangam ñàkk julli kay lañuy wax ne aay nañ comme aayawuñ ko dégg kon lu war buñ ko diglee safaan ba dégg nga mhm. xaraamal lañ ko ah. luñ sopp buñ ko diglee mhm. safaan ba ñi ne sib nañ ko ñi ne siwuñ ko mhm. waaye digle dara nag moo xam ne war la wala luñ sopp taxul ñu aaye leneen loo xam ne du safaan loolu ah. ni ki digle la sarax aayewuñ ci julli ah. digal la koor aayewuñ ci joxe joxe alal hmm. aayewuñ ci dégg nga julli hmm. aayewuñ ci def yeneen jaamu yàlla jaamu yàlla rek la mbir mu ñu digal jaamu yàlla mën nga faa jaamu yàlla moo tax moo tax dégg affaire bi usul bi dafa baax hmm. yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci bisam daf dinaan woor bisum judd parce que ñoom bisu feet woor lañ si daan def nuñ laan feetalee yonent yàlla Moussa ah. dafa sant yàlla war loolu mooy seen aada loolu li muy tekki mooy bis bii bisu jaamu yàlla la bisu sant yàlla la yàlla lu mu wax ci sant imadu aal daawdu shukra yàlla nee na ngeen jëf rek sant ndax yonent bi sant woor gëm woor ndax dafay tax ñu xaraamal leneen lu woor ci bis boobu def gim def woor ak digle gi ko digle tekkiwul ne mënuñ faa def beneen jaamu yàlla ndax luñ ma lépp loo xam ne lislaam maye na ñu santeeku yàlla rek dagan na ko ñu def ko ci bis yu mel noonu bisu sant yàlla moo xam yokk jaamu yàlla la moo xam jàngale la moo xam saraxe la moo xam loo mën def pour sant rek dagan na boo déggee usul laa ci woor na am ñoo xam ne ñoo jàpp nañu jàpp nañu mbir mu nekk lañ fa def rek lu leneen lu dul loolu dañ koy aaye moo xam du safaanu loolu wala du safaanu loolu lañu war a wax sax mooy ñàkk màggal bis bu yonent bi dañ ko sib ko jàppee si xañate bi bis la bu yonent jaamu yàlla yow defoo benn xeet jaamu yàlla moom sib nañ ko bu na fa yàlla kon jaamu yàlla moom ngir sant yàlla kooku moom luñ santaane la woor la def mais tekku ne dañuy aaye leneen lu dul woor woor la def rek mooy ne kon bis bi bisu jaamu yàlla ma ngeen faa jaamu yàlla pour sant yàlla ci kàddu bi mu ñu defal mooy may ma ma judd ci yonentu njëkk gàmmu di seen ko wa léegi usul na daal léegi nag lañ war a wax xaaye nañ ko mooy ñàkk faa def benn jaamu yàlla kon kon ñàkk gàmmu dañ koo sible waaw am na ci bon xam-xam yi ne sa faam koo sib kon su boobaa sibuñ ko kon werante bi si ñàkk gàmmu la waroon nekk dañ koo sibam sibuñ ko waaye gàmmu ku dégg usul doo ci werante yaa ngi dégg moom waxam moo mm-hmm. tax boo delluwaatee ci cosaan yi diine ji dangay gis diine ji jub kocc lay doon mm-hmm. waaye boo delloo ci aqaawilu naas yi ak werante yi mbedd doo xam looy nattee in uriidu illal islaaha ma stata'tu wa wa barakaatu